salaamaaleykum gars yi nii naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 ci réew mi la ñu koy dooree li nga xam ne mooy ligue sénégalaise football professionnel war nañu ko door muy championnat bi di ligue 1 ak ligue 2 xam nañu li nga xamante ne mooy affiche yu première journée bi bu ñu ñëwee ci ligue 1 bi nag Linguère moom mooy ubbi ak gore ci match bu njëkk bi stade de ba tey war a dajeek ak Guédiawaye Dakar kër cœur war a jouer seen digganteeg Jàmbaar. AS Pikine dina joué seen digganteeg Génération Foot Casa Sport war a joué seen digganteeg Seneps Teungueth FC dina joué ak AS Douane Jaraaf war a ak Sonacos loolu mooy li nga xam ne mooy affiche su première journée ci Ligue 1 bi bu ñëwee nag ci Ligue 2 bi premier journée bi nii lay demee Ndiambour dina joué contre Demba Diop waaye Duc dina joué contre Walidane Kër Madior dina joué ak US Ouakam Amitié dina joué contre Oslo Ajel dina joué contre Aslem Port dina jouer contre ñii di waa Thiès FC waaye Mbour Petite Côte dina jouer contre Jamono bu Fatick loolu mooy li nga xamante ne mooy affiche su première journée ci Ligue 2 buñ jógee ci loolu nag dañ daan coow dem fële ci Angleterre xam ngeen ne tey ji amoon na jongante yu am solo yu fa awoon rawatina li nga xamante ni moom la ñu tuddee derby de Merseyside nga xamante ni mooy Liverpool ak Everton ñaari club yi nga xam ne ay dëkkandoo lañu bu ñuy xool seen jéng maam seen stade yi sax diggante ñaari stade yi mutul sax benn kilomètre tey ji ñoo doon joué ci match bu am solo boo xamante ni dañoo mujjee dégg maam témboo ba 0-0 kenn dugalul sa morom ndam demul ndam dikkul ci jongante googu nag ñu gis ki nga xamante ni mooy Idrissa Gana Gueye dal di dugg njël benn yoonam ci li nga xamante ni mooy matsam bu njëkk bi mu dellu si waatee foofu nga xam ne mooy ca Everton bu ngeen fàttale ko Idrissa Gana nekkoon na fa kon tey ji dafa dal di dellu si waat joué waat defaat li nga xamante ne mooy début encore beneen yoon voilà waaye ak lu mën a xew moom joué na ci jogante googu waaye mujj ñoo am ndam amuñu tam li nga xamante ne mooy jëluñu defet ndax kat Liverpool équipe la boo xam ne jamono bi seen yaram dafa tàng waaye de Everton ñoom tey jii d nga maam taxaw nañu ci kanamam dal di témbo ak moom benn 0-0 euh, voilà ndam demul ndam dikkul gannaaw loolu tam yeneen i yoo xam ne amoon na foofu la ci titulaire bokk na ci ni Nottingham Forest bu Cheikhou Kouyaté ñoom ñu doon joué tey sax marqué na benn bii ci jongante googu de waaye daal ñoom dañoo mujjee am li nga xamante ne mooy defet dañ leen di jox rek li nga xamante ne mooy résultat match yi nga xam ne xewoon na foofu la ca Angleterre Brentford dafa dal di dóor ñi nga xamante ñoo di Leeds United dóor yu metti juróomi bal ci ñaar waaye nag Chelsea Football Club dal di dóor West United 2 buts West Ham nag ñoo njëkk a marqué Michael Antonio mooy njëkk a dugal ci 62e waaye nag ki nga xamante mooy Ben Chilwell daal di dugg daal di égaliser pour Chelsea Kai Havertz marqué ci 88 loolu mooy ñaari bal ci benn yi nga xam ne moom la Chelsea daal di dóor West Ham United Newcastle United moom dafa dal di match nul seen diggante Crystal Palace 0-0 waaye Nottingham Forest bu Cheikhou Kouyaté moom dafa dal di daanu ci kanamu Bournemouth dégg ñetti bal ci ñaar Cheikhou Kouyaté moo njëkk ubbi caaxi ñoom waa Nottingham Forest ñoo njëkk am li nga xamante mooy 2-0 ci premier mi bi waaye di sàggan ba Bournemouth gi nga xamante ne ko dóor dal di ñëw seen kaw dégg ak ñetti bal 3 buts à 2 jongante mooy Hob Jerg ak ki nga xamante mooy Harry Kane ñoo daal di ñaari bal yooyu lay euh, Mitrovic moo marqué pour ñëri waa Fulham kon Tottenham moo marqué moo dóor kon ñaari bal ci benn Wolverhampton moom dafa daal di dóor Southampton 1 loolu mooy match yi nga xam ne tey ji xewoon foofu la ca Angleterre ca Espagne am na jogante gu am solo gu fa amoon doxante yente Real Madrid ak Real Betis yi nga xam ne dañuy xëccoo place bu njëkk bi Real moo mujjee xew na Real Madrid moo dóor Betis Séville Youssouf la woon waaye dañoo mujjee daanu ñaari bal ci benn ki nga xamante mooy eh, mooy Fiorentina ak Juventus nga xam ne derby la woon waaye nag ñu gis ñi nga xamante ni ñooy Juventus dal di dégg ma match nul encore seen diggante ak Fiorentina ki nga xamante ne mooy Arkadiusz Milik bi nga xam ne joueur bu bees la foofu la ca Juve marqué woon keroog tey ji marqué waat na beneen bii voilà kon ñaari match ñaari un bi partout la jogante googu daal di jeexee fële nga xam ne nag mooy ca Allemagne ki nga xamante ne mooy Sadio moom tam mu ngi doon joué tey jii ak Bayern Munich ci match bi doxoon seen diggante ak Union Berlin ñu mujjee match nul encore Bayern Munich dafa match nuloon keroog tey jii mu match nilaat benn ak benn voilà ñoom lañ njëkkam dugal sax waaye ñu ñëw daal di égaliser kii di Kimmich moo dugal pour ñii di waa Bayern Sadio Mané joué na li nga xamante ne mooy jongante gi yëpp waaye daal ñoom mujj ñoo am ndam ci jongante googule gannaaw boo xamante ñu li nga xamante ne mooy liggéey des champions yi voilà kon foofu bu ñuy xool léegi Bayern na dañoo ñàkk li nga xamante ne mooy seen place bi nga xam ne moom la ñu amoon ci bopp classement bi kon Bayern na nekkatul ci bopp classement bi foofu la ca dégg Bundesliga bi ndax dañoo matinal tey encore comme ni leen ko waxee benn ak benn seen digganteeg ki nga xamante ni mooy Abdou Diallo moom mu ngi war a joué tey ji voilà ñu nga xamante ñu ngi koy amal ñu jeexalee ko ak li nga xamante mooy transfert kii di Mbayang Sow Mbayang Sow bi nekk dégg nga maam arrière central ci équipe nationale féminine yéen a ngi koy bàyyi xel mu doon def jaloor yu am solo ci CAN féminine bi xam ne weesu nañu ko moom nag dafa dal di signé ak Olympique de Marseille voilà kon moom dafa fekk ji mbokki sénégalam yooyu ku ci mel ni Mama Diop voilà nga xamante ne ñoom dèjà signé woon nañu léegi nag kon Mbayang Sow bi nekk défenseur central bi nga xam ne ñu bëri ñu ko wooye Coly ndax kat xarañteefam ak dégg nga maam lu mu aaye ci li nga xamante ne wàllum défense ñii di Marseille dal dinañuy profité dal di koy signé moom ngeen di gis noonu numéro 8 lay dal di sol ci équipe boobule gars yi looloo fi leen di wax ngeen continuer